parlementaire euh, benn bokk yaakaar Abdou Mbow ci benn rajo di wax ni sant ñu ne loolu li leen Sénégalais yi sant mooy ngeen liggéey ngeen liggéey dañuy sant parce que ni fi ngeen démarré nii ne dafa liggéey bu la santee liggéey di la liggéeyloo am lu ñu la dénk am ñu ko yoroon te ña ko yoroon la ñu yor moomuñu ko sénégalais yee ko moom sénégalais yi la liggéeyloo xam lu ñu sant d' abord. Mhm. li ñu leen dénkoon saytu nu ko ba xam fu ñu ci doxale loolu ci liggéey bi la bokk képp ku ci jël loo ci wëttali jël nga dellu si ko jarul jarul yenn procès yi. président Diomaye li ma xam ne leer la ça veut dire que du logique gu dem procès jàpp ni tëj non non ku ñu épinglé ci un dossier ba mu avéré ni que épinglé nañ ci dossier bi ameel nga temps Sénégal dina am ñu ko gérer di discuter nga rendre l' argent et la vie continue ça n'a rien à voir avec loolu. parce que lii lii lii ci liggéey bi la bokk. parce que foog nga def état des lieux boo ñëwoon kër ñu denk la jox la kër jo télé bi bu ñëwoon ñu jox la ko mais bala ngay tàmbali di nga xool lu fi nekk ñaata caméra fi ne ñaata lañ luy seen salaire. lan moo fiy dugg luy génn kër gi lu mu attan mu attanut mais c'est ce qu'il est en train de faire question bi ñu war a poser du loolu li ñu waroon laaj mooy est-ce que ki ñu dénk réew mi am na un projet est-ce que am na projet bu gën bi mu fi fekk la réponse est oui est-ce que ànd naag des personnes yu am pour porter Sénégal la réponse est ce que am na adhésion populaire c'est-à-dire que les Sénégalais sont appropriés de son projet et de son programme la réponse est oui. mais jàpp ne est bi mu fi nekkee ak léegi. mu fi nekkee ak nga contester la réponse est non. mais jàpp nañu ne lu mu sumb bi nga xamante ne nee nañu génne euh, maanaam euh, cinq cinq dernières années rapport yi nga xamante ne moom la Cour moom la moom la corps de contrôle yi génne jàpp nañu ne dañ dem dañ dem ba si cappaandaw li. mais pour c'est loolu c'est normal c'est-à-dire pourquoi du aboutir ba c'est-à-dire que non non gisee ñi fi nekkoon waxoon ko mais. après non déedéet bokkul ñi fi ne defuñu loolu. ñi fi nekkoon jëluñu ay rapport ñi fi nekkoon président Macky Sall bi mu arrivé au début jëlul benn rapport demul jël rapport Cour de comptes jël rapport IGE dafa dem jël CREI yi la yow bi ma lay xam ñu dugg ci pouvoir bi da ci ànd amoo kër tey am nga ñaari kër foo ko jëlee yow gis naa ni kat bi ñuy ànd amoo woon oto tey yor nga ñetti oto foo ko jëlee c'est différent dafa ñëw créer pour te dafa am ñu ciblé bii amut rapport yi defaruñ ko dañ ko fee fekk corps de contrôle yee ko génne mais na xaalis Sénégal bi ñi ko yoroon ñu dénk leen ko Sénégal fal président bu bees ni ko saytu moo ko dina ko saytu loolu ça naa rien à voir avec ku defu non non loolu loolu ñëw ci dynamique boobu c'est-à-dire que amul benn incident possible à ce niveau là mhm. cest dafa suivre cours normal des choses bu ñëwoon créer une juridiction bu bees am yeneen mission cibler ay personnes là tu dirais d'accord mais rapport bu ñu def 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ñu waroon koo publier publier wuñ ko muy président daan génne leen rapport yi. d'accord ñu teg ko xam lu ci nekk.